bokkeen taxnut yi maa ngi leen nuyu di leen naan daal leen ak jàmm ginnaaw bu mu jëlee dogal nag dafay daal di dellu ci li nga xamante ne moom moo di grève a ngi sàkku ci yoon mu daal di koy delloo fi nga xamante ne moom moo di prison Sébikotane fi nga xamante ne foofu lañ ko laata ñu koy indi ci l'hôpital principal fi nga xamante ne foofu la nekk di fajo ba jamono ñu toll nii lii nag li nga xamante ne moom di Ousmane Sonko mu ngi koy sàkku maanaam dellu bu muy euh, sàkku ñu daal di koy delloo fi nga xamante ne moom moo di prison doon na li nga xamante ne métti na trop ki nga xamante ne moom moo di avocat di maître Ciré Clédor Ly mi nga xamante ne moom mu ngi bind xamal ne lépp li nga xamante ne dal na client rek na état jël ay responsabilité ndaxte moom maître mu ngi xamal ne nga xamante ne moom moo di état moo bañ a sàmmante ak li nga xamante ne moom la yoon dogal ci ki nga xamante ne moom moo di président Ousmane Sonko moom nag maître Clédor Ciré euh, li nga xamante ne moom moo di tribunal grande instance bu Ziguinchor dafa jël dogal pour ñu daal di delloo li nga xamante ne moom moo di tour président Ousmane Sonko ci li nga xamante ne moom moo di liste électorale ba léegi li nga xamante ne moom moo di état dafa bañ a jëfee euh, ndigal bi ñu mel rawatina ki nga xamante ne moom moo di deuxième yi xamante ne booba ak léegi mu ngi bañ a jox ki nga xamante moom moo di mandataire Ayib Daffé di mandataire ba nga xamante moom la président Ousmane Sonko e a jot ci li moo di fiche parrainage yi moom secrétaire euh, d'ordre yi nag mu ngi dànkaafu ci li nga xamante ne moom moo di moo Sonko ndaxte moom euh, maître secrétaire d'ordre yi mu ngi xamal moom moo di wérugu euh, de la faim bi nga xamante moom président Ousmane Sonko euh, moom la nekkee mu daal yi nga xamante ne ñoom la ñu téye ci biir kaso waaye euh, tam fi nga xamante euh, moom moo di prison bu nekk ci Ziguinchor ak yeneen prison yi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi te ñu téye fa ay jigéen ñu nga xamante boobu ak léegi li nga xamante ne moom moo di yoon waxu leen li nga xamante ne loolu la nam ci ñoom moom nag président Ousmane Sonko li ma waroon nag mu daal di dellu ci li nga xamante moom moo di grève de la faim ginnaaw bu mu defoon grève de la faim mu indil ko ay Euh, jafe-jafe trop ci li nga xamante ne moom moo di wér euh, euh, gu a baax ci li nga xamante ne moom moo di wér yaram Ousmane Sonko sutante na trop rawatina li nga xamante moom Ousmane Sonko mu koy sakku ñu daal di koy delloo fi nga xamante moom moo di prison bu Sébikotane fi nga xamante foofu la ñu ko téye woon ci biir kaso bi moom nag maître Ciré Clédor li mu ngi xamante ne buñ delloo ki nga xamante ne moom moo di euh, président Ousmane Sonko fii nga xamante ne moom moo di prison Sébikotane te mu continuer li nga xamante ne moom moo di grève de la fin li nga xamante ne xaaruñu ko mun na am looloo waral nag moom muy dànkaafu ci li nga xamante ne moom moo di nguur gi pour mu daal di jël ay matukaay wala mu daal di euh, jël li nga xamante moom moo di responsabilité ci par rapport ak li nga xamante ne moom la Ousmane Sonko di dund jamono ji ñu toll nii maanaam grève de la faim bi nga xamante ne moom la nekkee ak li nga xamante ne grève la faim boobu mu ngi koy euh, jur jural ci li nga xamante ne moom moo di wér yaram maanaam wér gu nga xamante ne sutante na trop trop bu ñu sukkandikoo ci moom li nga xamante ne moom la moom maître Clédor maître Clédor li li wax ci li nga xamante ne moom moo di euh, client di euh, euh, di Ousmane Sonko mi nga xamante ne jamono ji ñu toll nii mu ngi dund ay jafe-jafe yu tar moom di grève de li nag ñu ngi koy ñu ko toppal ba xam ndax yoon ne dina jafe li nga xamante ne moom la Ousmane Sonko di euh, sakku maanaam ñu daal di koy delloo jëlee ko ci l'hôpital principal yóbbu ko fi nga xamante moom moo di prison euh, Sébikotane wala dinañu ut beneen pexe bi nga xamante dina tax euh, moom moo di wér-gu-yaram mu ko xamalee ki nga xamante moom moo di avocat am di maître Ciré Clédor Ly mi nga xamante dafa bind fësal ne ki nga xamante moom moo di client am moo di président Ousmane Sonko mu ngi dund jamono ji ñu toll nii ay jafe-jafe yu tar ci li nga ne moom moo di euh, wérgu yaramam lii nag nañ leen ko tafal ba xam mbir mi li nga xamante ne euh, a a tukkee ni ma leen ko waxee sànq léegi nii rek mu ngi dund ay jafe-jafe yu tar jëm ci li nga xamante moom moo di wérgu yaramam ginnaaw bu mu tàmbaliwaatee li nga xamante moom moo di grève de la faim mi nga xamante ne dafay jàppale jigéen yi nga xamante ne ñoom dañoo nekk ci li nga xamante ne moom moo di grève de la fin ay fan yaa ngi nii mbir mi nag doon li nga xamante ne lu compliqué la ci li nga xamante ne moom moo di avocat di euh, maître Clédor Ly mi nga xamante ne moom am na njàqare bu a baax ci li nga xamante ne moom moo di wér-gu-yaram di client bi nga xamante ne jamono juñ toll nii euh, wér-gu-yaramam trop trop euh, te mu jóge ci lenn waralu ko li nga xamante ne moom moo di grève la faim mi nga xamante ne moom Ousmane Sonko nekkee na ko jamono ju ñu toll nii nañ leen toppal mbir mi ba xam ana li yëpp fa la nar a mujjee ak li nga xamante ne moom moo di yoon lépp lu ñu fa ci xibaar rek nañ dellu soit fii ni yekkee leen ko ci Caroline Express ci li nga xamante ne moom moo di Laye Roby TV